bi procureur bi ko pour ñu def ab enquête si faatoom ki nga xamante ni moo di Moustapha Ba moom moomee nag mën nañ ne ay mbokkam ba léegi mën ñoo jot si néew boobee pour mën koo denc jër ngeen jëfati mbokk internet ñun ñuy topp seen seen bii di info 2S TV daal leen ak Mamadou Moustapha Ba ginnaaw bi nga xamante ni génn àdduna mën nañ ne ay mbokkam ba léegi mënaguñ koo tegi loxo li ko waral nag du leen lu dul procureur bi nag moo daal di sàkku pour ñu def li nga xamante ni nag moo di ab enquête si moom mii ginnaaw bi ñu defee li nga xamante moo di autopsie si moom mii nag ginnaaw bu mu faatoo autopsie boobu nag wanul dara loo xamante ni lu dalub xel la moo tax procureur bi kon daal di sàkku ñu ubbi si moom mii ab enquête soxnaam si nag mën nañ ni nee nañ nag wóolu nañ ko fi nga xamante ni moom na si la borom kanam gii nag mujjee waxal waaye bokk nga xamante ni tamit ñoo njëkk gis ki nga xamante ni moo di néew Moustapha Ba moomee moom moomee nag mën nañ ko kon woolu nañ ko pour mu dem wax si li nga xamante ni moo di enquête boobee ñu woolu ko fi nga xamante ni moo di si dig Mamadou Moustapha Ba nag si fàttali mën nañ ne mu génnoon altine ba la ñu génn moom moomee sax nekkoon ki nga xamante ni moo yoroon ministre finance et des budget bu Sénégal ci jamono ki nga xamante ni moo di président Macky Sall xel xalaatun mukk mooy wooteel ki nga xamante ni moo di Amadou Ba ku wax lu nu mel di ki nga xamante ni moo di Bara Gaye moom nag mën nañ moo jiitee maire bi nga xamante ni moo nekk foofu sa diwaanu yëmbal moom moomee nag fas yéene surtout ni ni moo di waa Pastef les bi nga xamante ni nee naa nag nguur gi fi nekkoon na am nañ fa at ak ñaar yoo xamante ni mën nañ ne jafe-jafe yu Sénégal yi nekk jamono ji yëpp mën nañ ne leen ko yóbboo moom moomee nag nga ni moo di Bara Gaye kon nee na xel xalaatut muy surtout ni ki nga xamante ni moo di Amadou mën nañ ne bokkuñ si régime bi fi jugee te jafe-jafe yu Sénégal nekk ñu teg leen ko ñu fi doon faat ay bakkan di doon tëj ay niñ daj tëj yoo xamante ni mën nañ ne amul fenn foo benn Sénégal boo xamante ni amul benn Sénégalais boo xamante ni war ngaa xalaat pour mën leen a wooteel man mii nag kon jamono ji nag daal dinaay fekki ki nga xamante ni moo di eh, premier ministre bi di Ousmane mi nga xamante moo jiite parti bi di Pastef les Patriotes te képp kuy Sénégalais te ngay yeewoo fii ci diwaanu Yëmbal maa